because a week after 115 uh, prisoners were released as meso uh, to decongest, uh, decongest the uh, prison cell or the prison cell. President Adam Barrow announced the extension of the of offer to 121 inmates. He said uh, the mover is meant to allow social distancing with effect from 23rd April 2020 it is also in recognition of the urgent national response to both the health and socio-economic crisis. Now, of course, um, we uh, on the line to uh, to this subject, of course, is Prince uh, Bubakar Aminata Sankano, Senior Information Officer, who is uh, been actively uh, sharing updates uh, to this effect. Well, uh, thank you very much, uh, Mr. Sankano, for joining us this morning. Now, what has been the situation from 115 to 120, 121? Uh, uh, was, was, uh, why wasn't it done at once? Well, the thing is that, you know, I mean, like I said, we are in a state of emergency and things keep changing, it's dynamic. So the president, you know, has the prerogative to pardon people uh, anytime. So at that time, it was approaching weekend, so the list, the breakdown we got. And after, you know, he had that, so we got an update that, you know, the number has been increased. So it's just a normal uh, administrative procedure, and then which, you know, basically, as the president's speech, uh, which is the speech which sets the agenda. So, and actually, that confirmed uh, because the information about the release came, and after, you know, it has been augmented. So that he has the right to increase the number anytime. You know, and when that happens, we as his subordinate will come and clarify and say, okay, the number has gone up, has gone down, it has been extended. So it's just normal. Um, yeah. All right. Now, who are these prisoners and for what crimes they were uh, held in prison? Well, actually, I mean, uh, the information, that part of information, we are waiting for it. I mean, we release the information as we get it. And hopefully, during the, uh, the course of the week, uh, or the government spokesman, who is the primary communication contact for the government, will make that information available to us and we will share it to everyone. So that information is there, but you know, uh, the, the, nature of the job said that we cannot just go and release names of people and their nationality, length of crime, and other things until unless it is sanctioned by the higher authorities. But once that information is available and we are given the go ahead to share it, the rest assured you know, you will receive it. But as of now, eh, I cannot eh, make that detail available. All right, we will look forward to uh, getting that information anytime soon. Now, are there more um, prisoners to be released, and uh, what's what's the schedule for, with, with, with government? Well, like I say, I mean, the president has the prerogative of mercy to exercise any time. So, I mean, depending on the circumstances, he can even release more today, tomorrow. That one is unpredictable. It depends on the circumstances uh, at hand. So he has the prerogative to decide when to increase or to stop now until later. Well, that one, so it's unpredictable. We just uh, continue to focus on the relief programs, you know, so that we can get out of this uh, COVID uh, pandemic. All right. Now, it, it, is, it is well reported that the uh, Gambia's prisons, especially the Mile 2, are overcrowded. Is this um, number enough to decongest the cells? Well, if you look at the statement initially, that was uh, there are two objectives. One is to decongest, and the other thing is to practice social distancing. And we all know prison is, is an enclosed area. People are there who've lost uh, their freedom of movement based on court action. So therefore, if there's an, uh, an, an epidemic, an attack there, I mean, the casualty will be high, and government has a responsibility to protect the life and property of every citizen, prisoners and non-prisoners alike. So it is a preventive action rather than waiting until something happens you do something to prevent. So actually, yeah, so the problem about congestion, structural challenges, those are inherited. Uh, and we are just managing it and then uh, until we improve the situation. All right, Mr. Sankano, thank you very much for your time. It was uh, good to have you on the line. thank you very much thank you very much um, su ko defee uh, moom mi nga xamante ne ñoo uh, bokk nañ ci of course uh, ñu war a wax ci yu mel nii leeral li nga xamante ne mooy taxawaay bu nguur gi def président bi moom am na doole may na ko mu mun a baale wala sax joxe li nga xamante ne mooy ndogal pour ñu bàyyi ñi nga xamante ñen nañu jàpp ci kaso yi ñu gis ne bàyyi nañ ci téeméer ak fukk ak juróom ci ñoom waaye ñu gis tamit mu yokk ko to 121 uh, mooy téeméer ñaar fukk ak benn uh, war lan moo waraloon changes yooyu ak lan moo tax defalu defee wuñ ko wala wala wala uh, li nga xamante ne mooy bàyyiwuñ leen ñoom ña benn yoon ci yu mel noonu la doon leeral te wax na daal president bi mom mo am euh, pour determine, bi yefi yi nu moo ak yoyu euh, waye commencé nañu wañi kaso yi ndax ñu ngi ñu bari ñu ñu ko don euh, wax di ñaax nguur gi nañ wañi nit ñi ci kaso because yëf yi worut kaso bi ak coronavirus ni mo demee gis na yene rew yi sax ay thousands la bay waye wai tamit door na te foog naa comme am loi bi wala doole may na mën mun na am dana ko yokka ci ci ci li nga xamantene moy balal ñen ci ñom jangat bi waaw nekk na lu am solo xam naa ne lii comme moom mu fi jógee waa ak ñeneen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si ñu ñu war a jégal si kaso. Mhm. dinañ si def seen taxawaay mu mat sëkk. te xam naa ne borom tafaar yi ndaw yi rek la ñu nga xam ne seen problème réer waa am na ñu def gijaawaal yi nga xam ne moom xam naa ne ñooñu moom duñ si bokk waaw. am naa ah. yaakaar naa. ñu ndaw ndaw rek. tafaari ndaw yi daal waaye ñu def gijaawaale yi. est bu ndaw dafa am. waaw tafaari ndaw am na wala dañu ëppante daal. waa dañu ëppante dañu ëppante te foo ko mën a ndam ñu 121 bi ñu baal ñoo xam ne nii la daal ñu def dégâts yi li yu rëy. moom bokk nañ si moo tax ñoom ñi nga xam ne ñu ko dee saytu xam ne bu jégalee président jëlee ndogal jàppaloo tamit kon nuñ ko laajtee dana baax tamit ñu xam ñan lañ bàyyi nee na loolu dana am ci kanam te wax naa ko ñu ngi yaakaar xibaar boobu pour ñu leeralal nit ñi ñuñ bàyyi lan lañ def ak lan moo taxoon ñu téye waaw lan moo taxoon waaw ak yu mel noonu mm-hmm. parce que tamit euh, yenn def-def yi boo ko defee ñu bàyyi la day teye xel moo tax ma laay wax euh, nag tafaari ndaw yi ñu la ñoo tànn waaye ñu def lu rëy lu rëy weng ñu bàyyi la nga ñëwaat lu mel nii comme ah xam lu lu ne weng moom lu rëy la ñu bàyyi la nga <laughs> ñëwaat. waaw kon <laughs> jël de ko. waaw man man daal I think. Euh, Modou Niang lu mu doon bugg a laaxa laaxa moo nekk ne. Ah, dañ people with minor crimes ñu lañ bàyyi waaye people with ah, major crimes. yoo xam ne murder and other things ñooñu noonu bàyyi nañ because they are major crimes ñoo xam ne theft and other things loo xam ne minor minor crimes ñooñu la ñoo ah, bàyyi because balaa waxoon nañ ko fii si baat bi sax government bi ne dafa bugg a release prisoners who are with minor crimes so. Um, dafa am solo torop euh, because du Gambia moo nekk force gis nañ ne US sax mu ngi ko doon def mm-hmm. but unfortunately in their case ñoom they have to send those people back because they were committed euh, they also committed other crimes euh, foofu noonu si US waaye Gambia fii daal ñu ñaan daal loolu du fi xew mm-hmm. waaye daal dafa am solo amadu comme nuñ ko bàyyee tamit ñii dañ fa war a gistu in as much as président bi dafa am prerogative of mercy mm-hmm. pour moom mu exercise ko as the head of state mm-hmm. ah, nuñ ko defee tamit ah, def dañ ko ñi ñii dañ ko war a critical in that whether kii moom sa mbokka la rek kii sa xarit la rek nga bàyyi ko whether moom whether it he committed a major crime or not uh, because president bi wax na rek nañ bàyyi ñi ñoo xam ne dañ commit uh, minor crimes yow nga bàyyi nit koo xam ne dafa commit a major crime at the end of the day yow bring in more harm than good to the society sax bu Sénégal loolu indoon na ci coow lu bëri président bi joxoon uh, joxe lu mel nii am kenn ki nga xamante ne sax process bi mu def lu doy waar ne nekkoon doomi beneen réew mu nekk fa kees oh, oh, boobu jeexul mm-hmm. gis ne moom mu bokk si ñuñ bàyyi ci ñuñ bàyyi te waaw ciow lolu mu nekkon ciow lu reuy waaw years te waaw exactly te 5 years la waroon a tëdd te du fa sa lu met lu weer lu weer ñu waaw li tax ñu bàyyi ko juro na ciow dañ ko sax I think follow nen lolu waaw waaye fekk kooku ñibbi na dëkkam I think nag demone na ba dem ci international demone na be jàll foofu dem ci waaw so façon yoy lañ bara wara a hel fi ci si Gambia xam nga si angale bi nee naa waa mm. minor crime ak uh, major crime pour soo ko bëggee wax si lifin bi <laughs> dafa ñaaw ñaaw yi ëpp yi Amadou. xam nga président moom loi bi may na ko rek mu ne. neen mu jël luwaa bi rek appel ko mu war a dem. Mm-hmm. pot nag du moom mooy tànn diw ak diw ak diw ñu fa nekk ñooy tànn ñu ñoo war a tànn ñu am na ñu nga xam ne pour ñu dellu si ñu des fa moo génn. ah woote yi daal man man ay think ne nit ñi dañ war a gëstu am na ñu nga xam ne def nañ lu ne weng. te am njëriñ lool ci askan bi te mhm. tafaar moo taxoon ñu def ko ñun ñu dellu si waat dafa am na solo bu ah. baax mm. soo daal décision bi in as much as ñi ñi dañ ko welcome ñi dañ war a bàyyi seen xel torop especially authorities yu responsible ñu xam kan la ñoo bàyyi ak kan la ñu bàyyi because at the end of the day ñu bàyyi ko because coronavirus nga ñëw di def naka su du noonu si société bi dina a coronavirus bi nekk di daw fii te loolu nag gis nga yëf ñi nga xamante ne mooy you know TFC o TFC ak yooyu mm-hmm. ñuy sàccakat yi euh, te ñooñu tamit foog naa buñ dellu suwaatee société bi euh, beneen leneen la ah. soo mbir mi man pour bu ndaw ak bu rëy amul a ah, affaire yi daal mu gos <laughs> kuñ laal daal xam naa ne mooy loolu waaye euh, move bi dañ ko sentu woon nañ ko te dafa am solo mm. ndax situation bi moo ko laaj donte ne sax xëj na du neex ñeneen ñi wala yooyu waaye tamit coronavirus nu moo indi lii situation bi nu mu indee noonu foog